ah xanaa nag di sant maam jaara rek nag sant maam jaara bu baax ci xam ne kenn amul fayam yal na yàlla yokk leeram ak mboolem ku mu fa nekkal dara gi nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ndox mi moom sam lañ ko tuddee sam-sam la maam jaara bu sa moom duñ ci doyal benn yoon at mu nekk rek yokk ba yëg ko rek ñëw di gis ñëpp nag ñu ngi siyaar ñëpp di siyaar suñu sëriñ bu baax bu sëñ Muntaxa yal na fi yàlla yàggal jëm ànd ak wér a wérle ci dara gi nabi Moustapha sallallahu rek di doolu ci liñ ko santoon ndax ren li ñu heure ba ñooy fekk fi comp ci tey ñu ngi ñoo fekk fi ay ay robinet ca taay ca taay Baay Faal dañ ñëw di jukki di yër teen bi def lu nekk tey nag yàlla suñu borom gis ngeen ni mu ko dem ñaan suñu borom rek suñu borom yokk lépp rek yokk yokk leen yéen tamit yéen ngi xam ni dañ koo branché muy génn ci ay MRC léegi amatul jukki amatul dara da nga ñëw ñu doyal la amatul xëccoo amatul dara gën a sant yàlla bu baax a baax rek da ngeen bu baax a baax waaw sant soxna jaar bu wér a wér a wér a wér dërëm bu nu am nag ak lu nu mën ak suñu doole nag lu nu am rek fas yéene ko ci def bu neexee suñu borom waaw loolu rek moom moom rek